ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu yéen internautes yi ku ci nekk turam ak santam di am contentement di jënd ak yéen chaque bi nag lii la di leen indi li gën a fas ci xibaaru làmb noonu laay def rek daal di leen nuyu nuyu Mansour Fall sama caméraman bu ñaaw di ko bégee bu baax a baax waaye it sant di gërëm sama sponsor numéro 1 bi ma àndal di Ibi Jador indi ñu gàmm bu complet boobu Ibi Jador teg ci vermicelle kenn du Aziz kenn moom ndox bu set baax ci xale baax ci mag ñi naan ko okaya ndox bi ñuy aar noonu laay defee ne saraax ci journal suñu làmb ba mu xëyee ci xëtam bu njëkk nag journal suñu làmb loolu la xëyee waaye it record loolu la xëyee journée de vaccination à l'arène nationale hier les VIP boycottent le CNG ki nga xam te ne nag mooy journal record journal record nag lam cay xamle nee na les lutteurs abonnés absent maanaam bi ñuy xaar vaccination yooyu di xaar ki nga xam ne mooy ténor làmb yi ñu naan leen VIP yi gisuñu ca kenn ca noonu nag ba léegi Bira Sène moom mi nga xam ne moo jiite CNG la lam cay xëy di xam xamle mu ne combat yi nag dinañ reprendre su fekkee bi nga xam te ne def nañ évaluation xam ne kat maladie bi feebar bi coronavirus dellu na ginnaaw ca noonu nag ki di gouverneur bu di Alassane la moom lam cay xam ne nag mooy nee bu ñu xoolee ne combat yi war nañ koo reprendre incha allah juste ne nécessaire na ko ubbi waat daal ñuy ubbil arène nationale ba yi bëri Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise même mi nga xam te ne ni mooy promoteur bi gën a mag mën naa saison bi ndax combat yu mag yépp moo ko taxawal lam cay xam ne rek nee na li nga xam te ne ni moom la ministre de la santé daal di dogal ñi daal di aj combat moom nag loolu décision yu sage la jàpp na ne loolu bokk na ci gën ndax bu ñuy naan xaalis day fekk ba bakkan nekk fa ndax tout li ñuy naan la sante avant tout moom loolu lay xam ne ci journal bi ca noonu nag ba léegi ki nga xamante ne nii mooy Eumeu Sène junior moom ma nekk équipe moo faram daal dina vacciné wu Garga 2 vacciné wu na waaye lam cay xam ne mooy bu vacciné woo état bi taxul waaye dafa dafa vacciné wu ngir pour sauver yaramam daal di mucc ci feebar boobule ba léegi nag olympique lañ jëm jeux olympiques Tokyo ka ko nar amal 2022 la ki nga xamante ne nii mooy aadama jaata 31e édition ba daan na la bokk ca jongante ya lañ koy xamal nag mooy kii di Alioune Ndiond Alioune Ndiond mu ngay xamal kii di compétiteur ba nee na ko lim xam expérience am maanaam mën na ko cee génnee ca noonu ba léegi nag Zarko lañ jëm. Zarko nag mbër ba ca Grand Yoff mu ngay tiire ci VIP ya di leen xas di leen dut baaraam lam koy xam ne nag mooy mu ne kii di VIP yi nekkuñu lu dul défendre seen ay intérêt personnel maanaam Gris Bordeaux même nga xam ne moo jiitle association boobu buy défendre défendre mbër yi VIP yi lay défendre ba noonu nag Abid Farhat ginnaaw bi nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ba mu génnee te émission ba ñu ko invité woon mu daal ne benn relation benn dara benn contrat relié wu ko nga xam ne mooy promoteur ba maanaam ku bëgg a combat am nga ñëw nga woo nga woo stafam daal di bëri moom ku ko di ah, euh, promoteur ba nag Habib Farfat daal di mer ba fottu génn nag tontu ko nee na la mu xamle mooy moom kam war a waxal di dafa Guèye dina wax ak moom incha allah ndax bu ki nga xam te ne nii mooy Serigne Ndiaye 2 jëlee ci moom avance jël ci moom xaalis bu bëri toog ba heure bii ne maanaam gisatul benn lii ci ñoom ñaar seen diggante amul dara leen lii moom loolu da koy métti ndax loolu nekk na lu koy bett maanaam mbër ba nag da koo bett waaye ca kañ jëm nag. mooy nga xam te ne mooy Général Malika Général Malika nag moo nga xam ne lutte simple moom moo nekk mbër bi ko njëkk a gañe fii Sénégal ba ñu ubbee làmb jax nga xam ne làmb jooju prince moo ko daal di doon taxawal ca noonu dañ koy bëggee bu baax a baax moom Général Malika waaye damay dem ba journal Les Arènes Les Arènes nag la muy xëy di xam leen Balla Gaye numéro moo mook Aziz Ndiaye Aziz Aly Ndiaye nag mu nga xam ne agent am la mu bëgg ci moom mooy trois defi 3 défis yam ca bëgg nag maanaam mu dem jël nga xam te ne nii mooy revanche ci ki nga xam ne rek mooy Bombardier deuxièmement mu nekkat roi des arènes ginnaaw ba mu ko nekkee troisièmement nag bu jël retraite mu jël ko retraite boo xam te ne day am doole maanaam su wàccee làmb ci day nekk ci leneen ak leneen te noonu nag combat bay dox ci diggante Papa ak Siteu ñu daal di koy reporter deux ans journal nag la mu koy xamle mooy combat boobu mooy nekk combat boo xam ne correctionnel la nar a nekk Papa Sow ginnaaw ba mu nekkee ci bunt bi nga xam ne buntu ténor la buntu VIP la mu bëgg a yéeg ci combat bi nga xam ne mooy dox ci digganteem ak Siteu ci la nar a yéegee waaye Siteu ginnaaw ba mu jógee ci guy gi le roi di simpi daal di ci jëlee défaite moom la ko naqaree dafa bëgg a waa waat daal di jubóog ay fansam daal di bëre kooku noonu di nga xam ne mooy Papa Sow mu nekk combat bu ñëpp di xaar di ñaan yàlla ñi ubbi war làmb ji combat boobu mën a leer ba léegi MMA lañ jëm ak B52 B52 bu mbuur nag vacciné wu na assuré ay fansam daal di préparé instant bi génn suñu gaal fa mu jëm nag mooy MMA daal di jàkkaaroog prochain combat ba muy amale noonu laay def rek daal di leen sant gërëm leen loolu moo nekkoon li gën a fas xibaaru làmb damay sant di gërëm sama caméraman bi Mansour Fall dama koy bëggee bu baax a baax sant leen internet yi jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc jël na Tapha Tine na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu